le gouverneur de la région waaye féliciter le commandant de la zone euh, le colonel Goïta et le lieutenant colonel Aline Diop moom mi nga xam ne moo jiite gendarmerie waaye féliciter xale yi Thiès euh, jeunesse su Thiès bi nga xam ne depuis démb génn nañ ànd ak euh, militaires yi fête bi nekk fête bu rafet li ma gis nag dafay wane ni nation la ñu nekk am nañu nation au Sénégal nation nag ndono la ndono loo xamante ni eh, génération dina ko bàyyil génération tey jii ñu am ndono moom laay wax nii liy def naar nation du am armée rek am armée taxul nga am nation liy defar armée rek du am territoire rëdd territoire taxul nga am nga nga am une nation am ab population aussi taxul nga nekk am une nation nation aussi du waaso nation aussi du diine moom mooy def nation nation li ko def benn sentiment la boo xamante ni li ko séq ñoom ñëpp dañuy am cofeel am yéene dundandoo ensemble kon nation moom gën na yaatu armée rek wala mbirum waaso wala mbirum diine yaakaar naa ni ñun Sénégal loolu am nañ ko ñu rend hommage ñi nga xamante ni ñoo tabax loolu ah ba tey jii ñun ñu mujje ko ñu war a góorgóorlu ba man ko transmettre aussi d'autres générations. thème tamit. waaw thème bi. lu am solo la ressources naturelles yooyu nga xamante ni suñu réew aujourd'hui am na pétrole am na gaz am na ay ressources am na forêt lu bëree bari mi ngi ball ci suñu réew mi ah ressources yooyu nag en général réew yu bëri ci Afrique su ko ballee daana indi ay fitna moo tax may interpeller rek ñi nga xamante ni ñoo jiite réew mi nañu fexe ba ressources yooyu ñu téye ko nu leer le transparent ba alal jooju mën a dellu ci askan wi yaakaar naa ne buñ ko defee rek mooy meilleur moyen préserver ressources yooyu mooy meilleure manière aussi préserver la paix sociale et la paix civile aussi dans ce pays